néew néew ci lu baax doonte xaritu tàndarma la woor ba ngoon nga dend ak sa mbokkum julit amul lu muy doge moo xam ci oto ya la leen wala ci yoon wala ca jaayukaay ya nga xar sab tàndarma jox ko benn xarit ba jël ba ca des doge ko sallallahu alayhi wa nee na loolu li muy néew néew mën na laa fegal sawara kon bu leen xeeb dara ci lu baax moo tax ñu ni lu baax bu ci xeeb dara <clears throat> lu mu néew néew rek bu ko xeeb boo amut loo sarax itam kaddu gu neex rek kadd gu neex rek ab sarax la mën nga ci am tuyaaba ju toll ne ja ngay am ci boo yëkkati woon alal joxe ko cheikhul xadim radiallahu anhu wax na ci téeréem bu siiw boobu nga xam ne moom la ñuy wax masaalikul jinaan nga xam ne moom lañ tudde barab bii tey euh, ma leeral tuuti rek ci diggante sarax ak def ci yoonu yàlla ku ne xam na ne barab bii def ci yoonu yàlla moo ko taxa mel ni mu mel ndax Euh, defe naa taalib bu ne am na dërëmam wala ñaar dërëm bu mu ci bu mu ci def te boo koy jox sëriñ bi da koy wax ni lii addiye la lii nañ ma ko defal ci liggéey bi addiye ji moom sëriñ beeku moom nu ko neex mën na koo def na waa Daaru Salaam di def nga xam dañ cee booleeg almet ni ko bu la neexee taalal kooku moom sañ na ko waaye li ñu ko jox ngir liggéey bi moom ci liggéey bi rekk la jëm boo demoon tey ci kër sëñ ba danga nga fay fekk koo xam ne lépp lu ñëw te jëm ci liggéey liggéey bi moom lañ koy jox ñu ne ana diw ñu ni kooku joxal nangam ndax lu jëm ci liggéey moom lañ koy jox waaye bu dee addiye nag sëñ baa ko moom moom nu ko neex dana ko def kon ku ne xam na ne barab bii li ñu ci def lépp mooy def ci yoonu yàlla sàkkoo ko tiyaaba moo tax mu mel nii mu mel jii kon pour leeral rek ni sarax ak def ci yoonu yàlla ak addiye lu ci ne euh, euh, wuute na ndax ñi ci doon def seen alal itam buñ joxee li ñuy joxe fii ba noppi bu ñu génnee bu ñu bëggee sarxe wala ñu gis ab néew doole dañuy làmbaat joxaat ko kon wala ne bokkut wala ne ni bokkut ndax bu bokkoon lépp dañ koy bol rek ñu def ko fii benn yoon waaye lii moom infaq la fi sabilillah lee sarax la tudd lële addiye la tudd kon sëriñ baa ngi wax ci masaalik nii amma tasadduqu ma al infaqi fa jamaa al xayraati bi ittifaaqi ba bay di jeex sëriñ bi nee na sarxe sarxe ak dundal ci yoonu yàlla ñaar yii de boole mboolem yiw yi ak tuyaaba yeeg yu baax yëpp daje nañ ci seen biir niki noonu lépp loo xam ne luy jariñ ab jullit la rek mel na ni sarxe ak dundal ci yoonu yàlla lu mel ni jokk ak bokk ak yeneen yi ci des yëpp nga xam ne loo jëf ji baax la li ngay am fii ci tuyaaba boo ko defee moom ngay am ca euh, moom ngay am ca yooyee yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na as sadaqatu tasuddu sab'ina baaban min ashurur sarax benn sarax rek dana fegal jaam bi juróom-ñaar fukki bunt yoo xam ne benn bu ci ne musiba la doon andi ak balaa nga joxe benn sarax ñu tëjël la ci juróom-ñaar fukki bunt waaye kon ki dëkk ci saraxe koy yàlla mën na ko musal ci bunt yëpp ndax bu fekkente ne bis bu ne ñu tëjal la juróom-ñaar fukki bunt ah kon bu waa yaakaar naa ne léegi tey bunt yi lu ñu bari bari mën naa am yi ci jëm si woon ci yow dana jeex kon sarax am na doole lool waxaat itam mi ittaqillaha wala taxqiranna min almaarufi cheyan walaw an tufriqa min dalwika fi inayil mustasqi na ngeen ragal yàlla te ngeen di te buggi bu leen xeeb dara ci lu baax ndax fa ñu jëm de lu baax du fa doy dañuy wax ni ku fa dem da nga réccu yowmal xiyaam ku fa dem da nga réccu bu dee ki amee lu baax lu baax li lu mu bari bari bari bari dana ne bu ma xamoon ni tuyaaba ji ni lay toll ak fay ji nii lay neexe lu ma góorgóorlu woon rek danaa ko yokk kon dafay mel ne kooku rëccu na ndax lam daan noppaloo ko suñu yeew ak di ko jëme ci boppam bu bu bu xamoon ne yëf ya demee dootu jëme dara ci boppam <clears throat> keneen ki gën a rëccu nag te ak rëccoom gën a metti nag mooy ka nga xam ne moom euh, dara ci lu baax wala yaasu billahi taala amu ko wala bu ko amee tuuti la loo xam ne mënu ko jàllale kooku moom mooy ka gën a rëccu donte kii rëccu na waaye kii moo gën ak rëccu téeméeri yoon <clears throat> kon euh, barab boo xam ne ku fo dem rek da nga rëccu moo xam lu baax la war a yokk la wala lu bon loo amee la te bëggoon a teqale koog moom moo tax euh, mu ni euh, waan talqa axaaka al muslim ko mun basit sarax bu ci xeeb dara lu baax bu ci xeeb dara donte da ngay dajeeg sa mbokkum julit ci teen ba muy root nga wëgg sottil ko sax loola sax am sarax la wala nga dajeek moom euh, tàllal sa xar kanam ba mu ñime la loola itam ci ci ci ci ci sarax la bokk wala nga wax ko kàddu gu neex comme niñ ko waxee woon léegi Euh, mu waxaat ba tey nii fadlu afdalu sadaqaati an tushbia kabidan jaaian euh, sarax bi gën ci sarax yi mooy nga raggal ku xiif danañ ko wax waxaat itam ni ida maata al insaanu inqata amaluhu illa min thalaas sadaqatin jaariya aw ilmin yuntafau bihi aw waladin saalihin yaduu lah sallallahu alayhi wa sallam nee bu nit faatoo mboolem jëf yim daan def yëpp tëj na carnet yi ñu daan bind yu baaxam yépp fermé nañ ko léegi lu des mooy lam defoon ñu di ko ko fay fu mu mën a amee ti tuyaaba ñu ne ah bunt yëpp tëj na de léegi dara mën a tuddik ndax mën a tuta jëf moo tax mën a tuta wax mën a tuta def xanaa ñetti bunt dong de la mën a amee lu baax lu ko mën a fekk si fii mu nekk benn mooy sarax buy daw sarax buy daw Euh, mooy def fi loo xam ne lu jaamu yàlla yi di jariñoo la moo xam tabax jumaa la comme nii ñu def wala gasub teen nit ñi di ca naan wala tabaxub hôpital ñu di ce faju wala tabax jàngukaayub alquran wala leneen lu mën a doon lu baax loo xam ne wàcc nga ko fi jaam ñi di ko jariñoo loola sadaqa jaariya la tuyaaba ji da lay fekk fa nga nekk mu mel ne yaa ngi ci kaw suuf di jëf wala sax jëf ji gën a yaatu ndax ngis salak dara dootu ci dugg moom jëf ju sell lay yoo xam ne directement incha allahu taala lay fekk fa nga nekk beneen ba ci topp ci ci ci li nga xam ne ci la jaam mën a amee aw yiwu ganaa bu faatoo mooy xam-xam bu ñuy jariñoo taalif ay téere bàyyi fi nit ñi di ko jàng di ci xame seen diine wala ñu di ci xame seen àddina di ko ci jubbantee di ci mën a jariñu loolu itam dana la fekk fa nga nekk tuyaaba ji lu mu bari bari dana la fekk fa nga nekk incha allah beneen ba ci topp mooy euh, amoo sadaqa jaariya amoo xam-xam boo fi bàyyi waaye am nga doom ji baax joo xam ne jàngal nga ko alxuraan yar nga ko teg nga ko ci yoonu lislaam ba fu mu jullee rek xelam dem ci yow mu jàng alxuraan wala ay aaya daal lay ñaanal ñaan googu itam day def directement di dolli ko ci sa balaas yiw yi nga xam ne euh, moom la ñu tëjoon moo tax ku ci yàlla dénk gone euh, war naa góor góorgóorlu lu baax ci mu jàng xam diine ndax waxuma la lam koy jariñ moom moom man ko jàngal waxuma la lam koy jariñ waaye yow mi ko fexe ba mu jàng ko rek euh, lépp lu mu ci defari ci tuyaaba ak lu baax rek xamal ne dana la fekk da nga jot sa wàll sarax nag sunna la sunna mooy loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ko def te digle ko kooka sunna la mu tabe woon lool mën a joxe lool rawatina nag ci ci ci weeru koor ak bisi iid yi ak ni ma ko waxe woon léegi bis yi nga xam ne ñoo gën ci biir at mi naka noonu itam sarax bëgg nañu ku koy jox ay jigéen ñaale ñi nga xam ne yàlla da leen a boole ci bokku deret boo amee looy joxe te ñu woo ko tàmbaleel ci ñoom ndax ñaari tuyaaba ci yi ciy daje mooy tax mooy am nga yoolab sarax waaye am nga yoolab ku jokk bokk te ñoo yaay yaar lu ci ne euh, lu am solo la lool lool lool naka noonu bu yooñ jàllee nga xool say dëkkandoo euh, lépp looy dimbalee te gis ni say bokk xëy na sori nañ wala aaji wowuñ ko xoolal say dëkkandoo ba xam moom am na ci ku ko aaje woo wala déet bu fekkee am na ci nga bañ leen a jéggi ndax dana rafetal dëkk gi dana tax ñu gën laa sopp te itam àq yi nga xam ne moom nga leen ameeloon dana tax mu mu mu mu mu mu gën a woyof seen diggante ndax yonent bi sallallahu alayhi waxoon na ni jibril day ñëw fi man di ma dénk dëkkandoo di ma ko dénk ba ma jàpp ni sax xanaa bu ma faatoo ci ñi ma war a doon lay bokk ndax àq yu bari yu ma ko ameel ak jige gu ma jige kon euh, ki am lu baax di ko def gannaaw bu say bokk jàllee na nga ca teg say dëkkandoo ndax ñoom lañ la ñoom lañ la sant te dëkkandoo dafa bari àq lool comme nu sallallahu alayhi wax noonu ci hadis bi sarax nag waaw bu bu loolu jàllee nag keneen koo gis te dim tam dib jullit te aaji woo ko ah, man nga ko ko jox mu jariñoo ko tiyaaba ja dana la jot incha allah bokk na ci li koy tax mat di yokku yool bi di ko matal mooy nga suturaal ko suturaal sarax bi ba yow mi koy joxe ak ki nga koy jox rek yéen a koy yéen a koy xam loola bokk na ci lii tax sarax ba mat tuyaaba ji gën a bari alxuraan nee na in tubdu sadaqaati fa ni'ammaa hiya waaye wa in tuxfuha wa tuutuha alfuqaraa fa huwa xayrun lakum yàlla nee na sarax yi bu ngeen ko joxee tam feeñ ñëpp teg ci bët baax na de moo gën bàyyi waaye nag bu ngeen mënoon a fexe ba nëbbu ko de ah jox ko ña ko yelloo te kenn du du yoonu kenn du ca nekk ah nee loola de moo gën ci yéen kon moo gën a bari tuyaaba eh, bokk na ci la koy taxa euh, mat moom sarax ba tey di yokk tuyaaba ja mooy mu doon loo xam ne ki nga koy jox yitte woon na ko joxe da ngay joxe loo xam ne yow mi koy joxe da nga koo soxla ni alxuraan waxee ni lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu baax du ngeen ko mun du ngeen ko mën a mukk lu dul da ngeen a joxe ci li ngeen bëgg ki yor mbiram ba soxlaatu ko mu sarxe ko mu joxe ko kooka bu ci amee tuyaaba yi dana néew kon booy joxe da Euh, joxe li nga xam ne bu dul ko rek tuyaaba nga mën koo téye jariñoo ko ndax soxla nga ko waaye sàkku tuyaaba moo tax nga di ko joxe waaye du ñàkk koo soxla moo tax nga di ko joxe loola bokk na ci lay tax sarax ba gën a duuf gën a gën a mat moo tax mu ne wa yut'imuna taama ala hubbihi dañuy joxe aw ñam ak leneen lu mel ne moom tañ soxla ko ànd ak ña ngi ko bëgg ña ngi ko bëgg tiim sa ndab di lekk ab donga di yelwaan mu leer na li nga tiim doy la waaye nag bëgg nga tuyaaba nga ne nga xaaj ko ci digg ba jox dong ba mu dem ah, waaye leer na nag doo suur loola ah, mooy li alxuraan digle wa yutiimuuna taama ala hubbihi da nga koy joxe fekk yaa ngi ko bëgg waaye boo noppee ba nag amatoo ci soxla boo ko joxee de baax na moo gën bàyyi moo gën tuur ko waaye nag tuyaaba ji dootu dootu demee noonu maanaam daal joxeel ci li nga xam ne yow ci sa bopp ku la ko joxoon nga mën koo jëriñoo waaye bul joxe loo xam ne ah, soxlaatoo ko naka noonu Euh, moom sarax lu mu gën a bari rek tuyaaba ji gën a bari tàmbalee ko ci fuqaraaw ya ak masaakiin ya te itam fexe ba bañ caa tofal nag li ñuy wax almann wal ada yàlla nee na laa tubtilu sadaqaatikum bil manni wal ada sarax yi ngeen joxe tuyaaba yi ngeen wut ba am ko bu leen ko yàq nag ci budul ko nag man ak maa la defal nangam ak da war a xam ne bu ma taxawutoon dara du jag yooyu baat nga xam ne day yàq jëf ji nga defoon yàlla nee na loola bu leen cee yàq seen jëf ju baax bu leen def lu baax ba noppi di ko yàqaat ci ay ndamu ak budul ko nag manaak ak da ngaa lëj léeg da ngaa war a liggéey da ngaa war a nàngam yooya boo defee lu baax ba noppi tofal ko ca dafa mel ne yàq na ndax alxuraan nee na bu leen ko yàq ci yooyu te kon bu ko bu ci yooyu duggee kon day mel ne eh, danga nga koy yàq ba noppi. Eh, sarax nag mbokk yi ni ñu ko xamee. bari na tuyaaba lool bari na ay njariñ lool ba egg ci mëni suta lim yëpp xëy na danañ ci tudd yenn rek bu ko defee nga xam bariwaay bi ak njariñ yi nga xam ne làmboo na ko euh, sarax dana fekk balaa comme ni ñu ko waxee woon léegi dana fekk itam deegu ñaaw nit ki waroon a dee deegu ñaaw waaye mu jox ab sarax yàlla wommat ko ba mu dee deewin wu rafet moo xam ca kaw lalu hôpital ba la tëdd wala ca këram la ko defee waaye daal dee moom dana metti waaye nag mu rafet melokaan wa rafet loola sarax dana ko waral naka noonu itam dana fay merum sunu borom tabaraka wa taala dana far itam ay bakkaar am na ci bakkaar yi yoo xam ne sarax rek moo ko mën a fekk moo ko mën a far ni mu amee ci bakkaar yi yoo xam ne euh, ñaq fàgg lu lew képp moo ko mën a saafara moo ko mën a tax ñu jéggal la ko noonu la amee bakkaar yoo xam ne sarax rek la moo tax ñu euh, mooy tax ñu jéggal la ko naka noonu itam dana wéral ku wopp nit dana wopp ñu di ko sarxeel wala moom ci boppam muy sarax di sarxe te bàyyi ba yàlla euh, rus ko ngir sarax yu bari yooyu muy def yëkkati ko ci feebar ba mu jóg dolliwaat doxewaat ay yitteem fekk sax da caa mën naam da caa naroon a faatu euh, dañuy nett li benn ñaari xale yoo xam ne euh, dañ doon fo ndekete kenn ki mi ngi yor paaka ñuy foo ba ci yàgg rek mu jam ko beneen morom bi ci bët bi mu xale moom xamul dara ñu yóbbu ko hôpital ñu xool daal ne ah, kii di bët bi moom daanaka mook li ci liñ gis ni moo ci mën a xool daal li ciy gis loolu euh, affaire bi yàq na ko <laughs> ragal lañ daal dootu baaxati euh, ba ñu ñàkk ci yaakaar lool way jur bi xel mi dem ci li yàlla digle ci sarax ak lim digle ni mën naa saafara ku tawat mu yëkkati lu am am solo ci réewi naar yi la xewe woon ci réewi la xewe woon yëkkati lu am am solo euh, sarxe ko ngir doomam jooju yàlla delloo ko bëtam boobu ñu tegaat ci ay fan ñu delluwaat ci hôpital bi ñu xoolaat gis ni solution mën naa am euh, ñu def opération yàlla jaarale ca biir opération ba ak wéralam delluwaat bët ba na meloon nga xam ne boo ko gisee day mel ne dara mosu koo jot loola ku ne xam na ni ak bët ni mu mel buñ ci jamee paaka mu delluwaat ba di gisaat nam daan gisee ku ne xam nañ loolu am na lu ci dugg lu bokkut ak euh, pajum kese kon moo tax ñu ni sarax dana wéral ki nga xam ne dafa dafa dafa feebar kon ñi ñi feebar wala ñi ku feebar nañ koy sarxeel te xam ne sarax mën naa bokk ci li koy li koy wéral mooy pikir bii gën a gaaw naka noonu itam dana dugal mbégte ci xol yi ak fuqaraaw yi dugal mbégte ci xolub ab julit tuyaaba ju réeréyang ci biir naka noonu itam dana keral ki nga xam ne mooy mooy sarxe sarax bi dana ko keral ëllëg yowmal xiyaam fa nga xam ne ker amu fa yowma laa dilla illaa dillu buñ demee ba kenn ku ne sa keroog sarax ngay sa ngay ngay kerloo kenn ku ne na sa sarax yaatoo noonu la sa ker di yaatoo am koo xam ne dana am lu mel ne mbaxana ca lay kerlu ndax noonu la saraxam toll fonk ko woon gis koo xam ne dana am lu toll ne parisol mën na caa kerlu am ko am lu toll ne mbaar am ko am lu toll ne jumaa ji mbaalu këpp loola lépp mi ngi aju ci na sa sarax baree rek noonu la sa ker di gën a yaatoo di la musal ci tàngooru ëllëg yowmal xiyaam kon lu jara lu jara lu jara baril la euh, moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax wax ni kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bayna naas euh, nit ku ne ci ker roonu saraxam ci lay nekk toog fa ba kero yàlla di àtt jaam ñi ku ne xam na ni tàngaay wu méttee métti la wax ni moo fay nekk kon wut lu lay musal ca tàngoor wa te fii nga nekk fi nga ko mën a amee nga teel ko fàggu bala nga caa egg eh, ca barab booba naka noonu itam sarax bokk na ci liy dolli wërsëg dindi ci sa alal joxe mu mel ne daa wàññiku déedéet wàññiku wut de bu boobaa day yokk wërsëg wa ndax wërsëg yàlla moo koy sekkil moo koy baril te lay tax mu dolli dolliku du doonut lu ab jaam mën a xam waaye eh, mbirum suñu borom la tabaaraka wa taala kon li nga joxe ci sarax bul jàpp ni daa wàññi sa wërsëg lu mu bari bari waaye jàppal ni da koy yokku di ko di ko di ko gën a ñoŋal moo tax sarax ni muy yokkee wërsëg noonu la koy aare ci yàq-yàq yu bari ak tolof-tolof yu bari yoo xam ne dana jékki-jékki dugg ci alal fekk mën naa am sarax da caa génnut wala asaka da caa génnut wala dimbale wuñ ci jaam ña nañ leen ci war a dimbalee ah, xanaa di wut di dajale rek da ngay xëy xëy bis rek dara nduxum dugg ca loola sarax bokk na ci li nga xam ne moo koy moo koy fekk waaye itam da koy barkeel da koy barkeel yokk wërsëg wi aar ko barkeel ko ba bu nit ñi mënee fukk yow nga man fanweer te ku ñëw fekk la fi nga nekk sax day jàpp ne yow waroo man dara waaye barke bu nekk ci biir tax na li nit ñi man yow man nga lu ko ëpp ndax barke barke moo demee noonu barke moom doonut loo xam ne lu ñuy teg bët la waaye boo ko làmbee da nga ko da ko mën a daj naka noonu itam day woyefal xisaab xisaab lu mette métti la mooy li ñuy tudde audit ministère wala kuñ fi ni tey dañ lay audit wala ki lay audit mi ngi ñëw rek bu sa yàlla dootu am jàmm ndax li muy def mooy xool ba xam ñu la dénkoon fa tàmbalee ba fa mu yem noo ko jeexale ci lan nga ko euh, dugal euh, loola lay seet si moom bu ñëwee bu noppee day bind rapport wan ni li ma gis baax na wala li ma gis baaxut bu nee li ma gis baaxut moom ñu teg sa dombal tànk kooku moom amut ñaari wax bu nee li ma gis baax na nag mën nga faa jaare sax yëkkatiku jëm kaw ñu fal la leneen loo xam ne moo gën a kawe li nga nekkoon kon moo tax audit ñi ñuy audit si gars yi ragal leen lool waaye audit bu ëllëg nag du muy mel nga xam ne fa nga tàmbalee euh, juddu ni uwee wàcc ci kaw suuf ba keroog ñu lay teg ci jaar di suuli diggante boobu li nga fi def lépp la ñuy xool ah boobu audit yaakaar ne moo gën a garaaw moo gën a garaaw fuuf kon moo tax sarax bokk na ci lii woyefal euh, xisaab boobu ëllëg lu ñëw rek ñu ne ah baal mu jàll loolu amul solo baal mu jàll loolu amul solo loolu sarax mooy tax nit ki mën koo am kon euh, nañ ci góorgóorlu lu baax a baax sarax dafa bokk ci li nga xam ne mooy woyafal xisaab ci doomu aadama bi naka noonu itam euh, bokk na ci lii diisal balance yi yiw kenn ku ne ci ñun boo sañoon bu ñuy peesee sa ñaari jëf lu baax la mooy gën a bari fuuf lee sax mën naa am bëggoo ci am dara te sarax daa bokk ci secret bi nga xam ne mooy diisal balance yiw yi ba mu daanu euh, ba gën a daane lii ci des naka noonu itam dana jàpp ndal rombuk siraat siraat euh, barab la boo xam ne ñëpp ciy jaar baax teewu caa jaar mel na leen teewu caa jaar xanaa kay boo baaxee ba baax boo fay jaar mu gaaw lool ba mel nañ melax ba kenn du xam sax jaar nga fi mu déet waaye nag moom wa in minkum du waariduha kenn ku ci ne dana fa jaar romb fa euh, ak baax teewu caa dem kon la fay tax boo jaar boo fay jaar mu gaaw mu jàpp ni loola sarax ci la bokk Euh, naka noonu itam dana yëkkati ay daraja ci àjjana koo xam ne jëfam ju baax daal bu ñu ko xoolee ci dixième étage la war a yem fi la mën a dëkk waaye ñu xool sarax yi mu bari lool ñun yii kii danañ ko yëkkati ba ñetti téeméeru étage wala junnib étage foofa lañ koy yóbbu ndax saraxam yi daal bari na bari goo xam ne euh, fii moom darajaam romb na ko nañ ko yëkkati loola ab sarax moo koy maye yëkkati la ay daraja ci biir àjjana dem ba biir na sey daraja di yokk waat loola ay ay sarax moo koy maye kon sarax lu lu am solo la waaye itam sarax bokk na ci li nga xam ne day gërëm loo suñu borom tabaaraka ko taala lépp loo xam ne day tax yàlla bég tax yàlla kontaan mbokk yi loola lu am solo la te jeexe ab sarax dana bokk na ci li koy tax a def naka noonu safaan ba ndax yàlla lépp lu ko bégloo rek mooy lu merloo iblis iblis mi nga xam ne moom yàq ak loolu rek lay liggéeyee lépp lu bégloo yàlla rek day merloo iblis moo tax sarax di merloo iblis fu sarax bari rek iblis wane gannaaw daw ndax dana xam ne li mu bëgg du ko mën a am fii kon mbokk yi yooyu lenn la ci njariñ yi nga xam ne sarax mën na koo jariñ doomu aadama bi di nga neel yu baree bare yoo xam ne mëni suta mëni suta lim yëpp ah, ñu bëgg nag ni ma ko waxee woon moo xam ne koo xam ne da nga ko joxe bis bu ne waaye nag boo koy joxe tam bu ko jox ab faasiq faasiq mooy moykatu yàlla boo xam ne la muy def ah, bëta nga ciy tege mooy nga ña ngi koy teg ba nëbbu ko Euh, kooka bëgguñu bu ñuy joxe ab sarax ñu di ko ko jox dañoo bëgg bu ñuy joxe sarax ñu rombale ko ko donte aajo woon na ko luñ ci jublu mooy jàjj ko ba nga xam ne dana mën a dellu gannaaw xam ne nekkete fi mu jaar du foofu mu dëppaat deltu gannaaw kon sarax boo koy joxe xoolal ab julit boo xam ne yitte woon na ko te doonut siq maanaam doonut koo xam ne euh, kàccoor ga muy def ma ngi koy fésal ka nga xam ne la muy def ma ngi koy fésal amu ci soxla bismillah